may jël kàddu am na lu ma fi wax jëmale ko ci njuut njaayu politique code électoral soxla na ñu soppi ci lu bari tàppale bi bari na ci euh, ku ne gis na ne ku melni Ousmane Sonko dam koy tudde rek comme cas xuma ne dañ ko warono a dañ ko warono duggal

kumba am ndey ak kumba amul ndey la loolu nak dañ koy dindi ku bëgg doon électeur ku dem ba jot rek 18 ans da ngay war a mën a doon électeur waaye kenn du jàpp ne yow ñëwloo kon da waruloo voter loolu di benn ñaareel bi itam ku doon électeur mën nga bokk ci élection xanaa mu am attekat boo xam ne te du jógee rek ci automatique ndax ñi dañu def lu automatique atté kat né ki kat Limu def ñaawna lool mu ngi yëngatu ci politique kon fileeg juróomi at du mëna bokk ci élection parrainage bi dégg ngeen ko xam ngeen ni muy démé yëfu tàppale la yëfu ki du bokk ki dina bokk la du leneen loolu itam dañ koy sétat ba mu tegu ci yoon ndax nak

dund nañu lo xamné ne coup d'état constitutionnel lutax ma wax lolu président de la république bu jógee ba taxawat ci kanamu yalla ak ci kanamu askanam ne Dinatopion. top yoon madal ku topul yoon ma dal sa ci kanamu teg ci mu ngi suñu constitution yow la ñu yow président te nangu ko institution bu nekk yow yaay responsable fonctionnement régulier Madame muy dox te tegu ci yoon waaw nga jóg dama bëgg conseil économique social environnemental dama bëgg génne HCCT loolu san nga ko mën nga ko waaye assemblée nationale ne la loolu bañ nañ ko kon institution yi demaguñu ñu ngi toog nga ne kon dinaa bloquer seen fonctionnement yow kat waat nga ne di nga di nga joxe fonctionnement régulier nga bloquer génnee décret da ngay da ngay da ngay da ngay war sa sa sa kaddu ba pare di ko documenter par décret naan Dindinadio, dindinadio, diw dindi institutioni diw noonu ñaari institution yi du doxati mais kooku c'est un coup d'état institutionnel constitutionnel loolu dafa war d'ag ñu président de la république du Sénégal de war wara wàññi dolem, bu fekkee ne dañu bëgg jëm kanam lo c'est trop institution yo yu ñu amee sen président président de la république ndegem wane nañu sens de l'état Madame. xam luy war a état nangu sa responsabilité nekul ci ku bu boba dañuy taxawal lo xam da fay ar institution bu am ba nopi. président bagn ko mën nasaxal ba du mën ci liggéey ba ca conseil constitutionnel ndax amna na fi dundoon ca Macky Sall conseil constitutionnel soxla ñu Metal.

corps de contrôle inspection générale d'État. état yàgg ngeen dégg rapport IGE rapport IG, dal na ci diw dal ci diw rapport ba réer rapport ba génnul makissal Sall ci boppam ne rapport yo, xam ne dem ci teg sama conc moo tax it génnul luy loolu aleelu askan wi ku ko pasar pasarloo dang mais da ngay rendre compte président du taamu naan kii dama damay inspection générale d'État linti ñu ciy indépendant de la présidence de la république n'est pas suñu impôt yi ñuy fay ku ko laal naka su dul dañ lay nga rendre compte ñëpp xam ko nag y a pas de n'y a pas de confidentialité mais États-Unis am inspection générale d'État

problème bourré, mais dëgg la am na wàll boo xam ne comme ngi wékku ci koom Sénégal ci boppam ndax emploi nag fokk liggéey am boo nekkee ouvrier te ñu ne dañuy taxawal chantier yi dëgg amon, na fi de dañu taxawal chantier yi ba ci kanam ouvrier du liggéeyati kon chantier mooy indi koom-koom koom boobu mooy tax ñuy liggéeyloo ay ay ay xale kon am na wàll boo xam ne koom-koom buy jëm kanam moo ko moom waaye am na wàll boo xam ne itam dafa war a jógee ci waxtaan ci xamle xale yi xamal xale yi fan la emploi am ci foofu sax ñu dëkk ci seen région bañ a jàpp rek ne ku nekk dafa war a ñëw dakaar soog a mën a am emploi Donc, nous organisons une foire mensuelle de l'emploi dans les, régions. Euh, L'Assemblée nationale a amené la constitution de la commission permanente anti ci Vous ñom xeexoo bi xulo bi tàccu bi mo leen fa yóbbu li ci dess yëpp ñu bari kii mom bokk ci woon de na <laughs> ñu bëri ñu bëri ci ñom dal lolu mo leen yóbbu assemblée nationale. kon lolu itam dinañ gën a dëgëral lépp loo xam ne liggéey la ci assemblée nationale jëm ci contrôle bi état di def seet politique publique naka la koy doxalee naka lay doxalee inondation naka lay doxalee li jëm ci mbey mi lan yan jéego la ci la ci jot dox ba noppi nag bañ yem rek ci wax ngeen nangu nañu non wax ngeen ñun suñu xalaat li la dañu bëgg ngeen boole ko ci seen ci seen i amna nak lo nag itam nit yaa koy faral di fàtte waaye Sénégal kese wu ko de xam nga jóg foncier foncier foncier scandale foncier patati patata waaye suuf yi gën a yi gën a am solo ña fi ñi ñi fi tegoon ñi fi nañ ko ay promoteur étranger ba pare yoon ndax foncier bâti Madame Souf, tabax t'es ngi ci té état mom ko yon dafa né bala nga koy kenen dafa wara jaar ci assemblée nationale waaye def nañ ko ci lolu amul amna nak fo xamné fi dañ fa laqatu nan wa PPP partenariat public privé waye fokk lolu commission d'enquête yi mën ko mën ko ah boru Sénégal bi agne na foo ëpp na ëpp na ci Sénégal ëpp na ci bépp sénégalais li tax ma wax loolu nag mooy ñu seen fonds monétaire international du ñàkk ngeen dégg ko dama yàgg liggéey ak ñoom bi ma nekkee banque centrale demoon naa fa sax ay ñoom seen liggéey mooy pour xas ba leb bitim réew foo jaar fay foo jaar fay amatuloo budget bi xat na mënatuloo duñ ko génnee génnee ba nak mo indi fin des subventions électricité suñu électricité cher na niti état di ci doli waaye nak na ngeen xamné itam électricité bi dafa cher ndax dafa am lu xew Senelec lu tax Senelec ñu fay teg ay ay ay politiciens lu tax ñuy yobbu ay politiciens et amul vous boo xam sa électricité vous cher na nga indi pas possible Vous nous tenez. 110 francs le kilowattheure, Fiti Sénégal 87 francs le kilowattheure heure cher mi en Côte d'Ivoire 60 francs ci dëkk yi avancé